wàllum njàng moom ak yaram sax dafa am lu ci lu ci xew man bi ma xëy na duñu ay mag mais mosu ñoo dégg daara sàngam mooy grève tey. waaw ba gis nañ rek li xew université. ñu koy wax temple du savoir nekk bërëb boo xamante ni vraiment yàgg na tabax ay nit mhm. mu dem ba ay diggante boddiwante ci wàllu waaso mhm. dox si ay diggante ay nit ba ñuy goranteeg jaaseeg defante lu ñaaw lu yàggul dara gis nañ fa tamit lu mel noonu ci ay wàllu parti politique ay militants yuy xeexante jaase ci biir espace universitaire bi ñenn ñi du duut baaraam la politisation de l' espace universitaire mm-hmm. Mm-hmm. waaye tamit boo boddiwante ci wàllu xeet boobu boo ko gisee tey ci lu mel ni université boo xamante ni ki nga ko tuddee du ko tuuti mm-hmm. loolu lan la lay def xanaa metti ak euh, euh, wone ne loolu euh, du sunu yoon gis nga université bii c'était prévu pour moins de dix mille personnes léegi ëpp na quatre-vingt mille personnes yu fa nekk ñun déjà bi ñu nekkee dans les années soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit ay première année de droit amphi cinq mille un ay mille cinq cent deux mille personnes dañ fa daan daje ñëpp déjà ëppoon na astamaak léegi ngay former ay ay nitu droit rek ay waxkat rek moo tax avocat yu bëri fi wax rek li am ba wóor moo di ne ñun dañu foog ne xam ñi am bac yëpp dañu war a dem université du noonu du université du moom rek mooy buntu la ci bunt yi mais waroon nañu am yeneen système de formation yoo xam nii dafay jox nit ñi métier ak xarala fekk du dem université nga dem université juróomi at am nañu fa nekk fukki at mënaguñu génn ak licence wala maitrise nga génn ba pare mënoo sax nekk caméraman suñu la joxee caméra bi nii da koy xool mënoo ci dara jëloon la depuis la BFM yóbbu la nga jàngi métier caméraman moo ko moo ëpp moo ëpp njëriñ fukki at te soo paree fukki at yi ba am sa maîtrise dangay dellu sa kër baay di bind ay CV di yónnee rek di bind ay CV di yónnee rek je demande nangam nangam je vous parce que mënaloo sa bopp dara. pour dellu ci li nga wax université dégg naa effectivement am na ay euh, mbir yoo xam ni Euh, mu ngi commencé ñëw sur des questions ethniques ak affaire yooyu entre Joola et séeréer loolu dafa doy waar gis nga entre Joola et séeréer entre séeréer ak tukulóor dafa am pacte moral ancestral mm-hmm. pacte moral ancestral mm-hmm. ñi koy def xamuñu seen bopp parce que suñu xamoon seen bopp danañu xam ne tellement pacte moral entre séeréer et jola dafa fort sous-préfet bu ñu mos a affecté Casamance séeréer ngay doon ah bon waaw waaw dañ demoon ba seetlu ne su préfet séeréer kenn du ko attaqué soo nekkee wolof wala tukulóor sax mën nga am problème ak joolaa yi mais séeréer ak joolaa dafa mos am pacte ancestral. Hmm. démb la soog a tey lu yàgg la cosaan la man Haalpulaar la mais sama pacte moral ak séeréer yi dama dama ko gëm te di ko dund di ko dundal loolu fa la réew mi waroon di doxe waroon nañu passé détails yi nga xam ni hmm. Euh, Sénégal yàlla musal na ko xam nga lu tax am na lu ñu yàlla may dañ koy xeeb mais am na solo moo di diine lislaam ak tarixa yi ni muy doxee xam nga da gis tarixa fekk fa xeet yëpp loolu féete leen kaw diine ji féete kaw deret ji am solo loolu lañuy Sénégal la yàlla mayoon ñu koy dundal di ko dundal ba léegi nii léegi apprenti sorcier yi nag xam nga la théorie du diviser pour régner loolu moo yàgg am ci àdduna ci ci ci teesu ci teesu euh, Machiavel yi la bokk soo bëggee yilif réew danga leen di tas féewale leen soo leen féewalee dañuy nasax du am doole kóolute ñàkk ci seen diggante su loolu amee mën nga toog ci kaw yilif ñëpp yooyu dañ ko war a moytu université temple du savoir waroon nañu xam jàng histoire xam ñooy ñan mm-hmm. mais nga dem ba université di xulu ay waaso jàngo jàngo mm-hmm. soo ko delloo ci diine sunu borom dafa ne ci alquran waqtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mm-hmm. yàlla nee na nañu mooy ci buumu yàlla bu leen teqalikoo soo leen teqalikoo rek na sax yàlla nee na itam kenn gënul kenn séeréer gënul joolaa tukulóor gënul wolof wolof gënul tubaab inna akramakum indallahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki gën a gëm yàlla amul jaam amul tëgg amul griyo yooyu yëpp amul yàlla nee na amul yéen a ko créé pour nootante ci seen biir mais man du loolu laa wax li ma wax mooy ki gën a gëm ci yéen moom laa gën a bëgg moom a gën a jege su nekkee jaamu portugais aussi bu tuub moo leen gën mais dañu dañu toll ci jamono boo xam ni ñu waxante xam-xam lépp <laughs> ku nekk sa bakkan ngay wax